yi ñuy jànkonteel ay jafe-jafe saa suñu feebaree ba ñëw ci hôpitaux yi li ko waral bokk na ci anam bi nga xamante ni noonu lañ leen di dalalee ci yooyu le hôpitaux ñàkk kersa gu metti la leen yenn médecins yi di woon li ni mel nag bokk ci li nga xamante ni nii dafay daal di yokk jàngoro. am na ñoo xam ne moom vraiment seen place newul ci hôpital yi. parce que hôpital yi il nga am xolu yërmande boo amul xolu yërmande waroo fa mën a nekk donc te loolu aussi am na am na ñoo xam ne vraiment noonu. fekkee sénégalais la suma laa sénégalais yi ndaw yi nekk ci hôpital yi boo ñëwee dèjà dañ lay ñàkkal kersa duñ la faara boo xew ñu gëdd la yuuxu la mais bu nekkee ay naar yeeg ñeeg yi moom vraiment dañoo accueillant dèjà xam ne ñi ñu waxee ak patient yi sénégalais yi ñoo arrogant ñëw ànd ak feebar gu metti doo gis ku wax ak yow ku la orienté wala sax jox la ay conseil xamal la fi nga war a jëm ak li nga war a def loole nag bokk ci li nga xamante ne nii lu metti yi les la teg si bari na lu ñu koy faral di gis ci fii nga xamante ne nii moom mooy salle d'accouchement yi. xaw ma ndax dañoo bëgg seen liggéey xaw ma daal catégorie yi sax tane góor yi moom vraiment mais jigéen ñi jigéen ñi ñoo nekk ci hôpital yi di ñàkkal kees nit ñi xoolal accouche salle d'accouchement yi ni ñu def dañu leen jël di leen torturer di leen yuuxu di leen saaga des fois am nañu ci dóor ay nit. par rapport ak question yooyu ngay posé léeg-léeg nga xaw si am réponse yu xaw a ñàkk kersa wala sax ñi lay daan gisuma ko je ne dugal fële demal fële. wante ca wet ga mu bari tamit ñi nga xamante ni nii ñoo ngi ormal seen liggéey di ko def ci anam bi jaar yoon. am nga santé boo boo fa nekkee rek am na benn waat boo waat waat boobu moom moo war a tax que malade bi da ko war a jàppale accompagnement bi da ko war a orienté et cetera et cetera. fëgg naa bureau ñu dalal ma dalal sama xel mu toog ñu waxtaan teg ma si raay ba avant ma fay jóge sax. li bari wàcc si man. ñi jot a tasel tey seen bëgg-bëgg jamono ji mooy fexe rek ba njiit yi mën a wéyal contrôle bi ci hôpitaux yi ba rekk ñu mën a xam bu baax a baax anam bi nga xamante ne ni noonu la ñenn ñi liggéey.